Paris Saint-Germain gu nërmeelu léegi nii fële ca Italie moom ngeen di am danañ ci dikk ci xëtu yaato yaato ginnaaw bi nga xamee ni nuyu nañ leen sant leen bu baax a baax ànd beeg Aladji Malick TV am na solo ànd boobee bég nañ ci bu baax a baax ci information yu wér te wóor yi ngeen di nu ci bile seen danañ dikk ci alande mi nga xam ne bu ma juumul ab triplé la teg ci taabal ji Mbappé tamit moo xam ni euh, tous tasar loolee lépp di ngeen ko gis ci information yi sa vi muy joytu gason boo xam ni daanaka gason boobee euh, jaaru yoon loolee lépp gars yi boole nañ ko ci benn information beneen bi mooy bu leen fàttee aimé suñuy vidéo ak def li nga xam ni mooy seen i abonnement ma nga noonu Milan AC dafa tëj ci équipe bi la nga di Paris Saint-Germain yaakaar naa ci Ligue des Champions bi defat ya ma ngay bëgg a bari ndax fi mu toll nii match boobee jeex na tàkk ñaari bal ci benn la génne Mbappé daanaka tous tasar ci boobee match nga xam ne doon na am Ligue des Champions nag Ligue des Champions la boo xam ne tey jii daana bari ay euh, yoo xam ni ay surprise la ci leen gën a dem ci kanam ndax ni ma ko gisee nii équipe bi fi mu toll nii amul équipe bu ndaw amul équipe bu mag équipe yëpp ñooy dóorante ci seen biir dóorante wuñ seen biir waaye équipe bi nga xam ne daanaka moo nekk équipe bu Hollande di Manchester City moom daa jàpp équipe bi nga xam ne mooy Young Boys ñetti bal ci dara la ko dóor la match bi nag ma nga doon amee euh, fële ca Angleterre ci stade Manchester City kon loolee jaadu na ndax ñoom ñoo doon recevoir waaye Hollande ñaar fukki minutes ak juróom ak cinquante et unième minute quarante cinq minutes yu ñu tofal benn loolu lépp bi mu ko boolee ci minute maanaam daanaka bu ñu xoolee match bi lépp ci première mi-temps bi la def li muy def dóor leen ñetti bal ci dara moom Haaland kese kon daanaka mi ngi wéy di bari ay bit ca Ligue des champions bi nga xam ni man Manchester City moo ko mujjee jël maanaam tonaa di titre loolee nag daanaka trophée la jël di ko joxaat gars yi ñi ci football trophée boobee ndax gars yi mën nañ ko nangul lanu yónni yàgg safi ñax mu tooy mi nga xam ne ab équipe am doon na ca football amu ca confiance ndax xam la ne ne gazon boobee dara baaxu ci ndax gazon boobee neexut a footballé loole tamit xam naa boo amu sens ah, dana ko tafantuwaay loo ah, ci victoire bi nga xam ne gars ñi am nañ ko ci kawam waaye wax dëgg yàlla tamit loole tamit mën nañ comprendre loolee ndax fële ca ah, Espagne gazon yooyee ak yeneen gazon yu bokkunu